dama bëggoon remercier bu baax baax euh, monsieur le président Habib parce que à chaque fois bu nu amoon problème suñu biir université yi moom la ñuy woo mu je pense que amul benn université bu nekk fii Sénégal te doomu Thiès nekk fa te Habib Niang jàppalewul kon moom war nañ ko remercier bu baax a baax a baax te tamit dafa am à chaque fois mu ñëwoon ci université dafa tour wala mu gis ñu lén la ni ñi ko wax muy jàng leen parce que ndaw day jàng bu jàngee ëllëg mën a yor réew mi kon si tànk yooyu lañu nekkoon nekk université di jàng ba am loo xam ni du xam-xam bu rëy mais ab tuut boo xam ne ni yàlla may nañu ko nu gis ni comme dëkk kii ak mu ngi jàppale bu baax a baax te amuñu xaalis buñ ko fayee amuñu leneen luñ ko fayee lu dul suñu xam-xam si la suñu xel mayee ni comme le mouvement bi day soxla base de données ko créer monsieur le président Habib Niang instant bi jot amatu liggéey bi dañ ko wara accélérer pour que massification bi gëna mëna jëm kanam ci kaw lolu application daf lay permettre au lieu que nga nek di bind ci feuille yi mais directement da ngay bind ci machine bi bo bindee ci machine bi li la lay génne directement ci feuille bii nii au lieu que mu doon ay bind en plus daf lay permettre tamit ki nga xamanteni xass nañ ko inscrire ci base de données dafay des bu fa desee Habib Niang tamit mën na xam beneen affaire muy évolution cellule muy cellule par exemple bu nekk jaxaw tey jaxaw Habib dina mën a xam waa jaxaw ñaata nit noo fa nekk. di rafetlu vraiment seen taxawaay euh, gis naa ni ngeen taxawee vraiment ni ngeen mel si man man liggéeyuma sama bopp de mais yenn jeunesse bi laay liggéeyal. il faut que ngeen conscience si lolu c'est important xam nga ciow bi bari na comme nuko ben benn rappeur rek yaaka na ku mun sa duma limay wax moy euh ben ku gisul abib nya yeen ñep ay ambassadeur de abib nya nañu bi mbënd bi amé ana gaay fi ñu bu problème yi amé corona bi am ana gaay bu étudiant yi amé ay jafé jafé différence ci mbéd yi ana gaay moo tax ñun képp ñu xam kenn xamuñu si wàllu caaxaan si wàllu dëgg nañu xam bu ñu doon wax si Habib Niang nañu xoolee réalisation réalisations de Habib Niang à loolu rek doy na programme pour élection yi war a ñëw jeunesse bi fi nekk tey ñoom ñooy fal jeunesse bi fi nekk tey kenn mënu leen nax man joxuma Massamba dërëm joxuma kenn ñaar góor góorgóorlu leen cellule jaxaaw cellule caali taaxi kaw Medina Fall ngent les de ngent kër see bi ñëpp jàppante leen benn loxo laa bëgg ngeen dóorandoo bugg naa fi ak un mois ma xool est-ce que mun ngeen ma feesal place man dama am fit mu eh, mun ngeen ma feesal waxuma stade bi de place de France laa di défier les jeunes non kooku moom lancé naa leen benn utile pour un mois à partir d'aujourd'hui dama leen di wax non non du ngay saat non xoolal dama leen di wax waaw bëgguma benn estaat dama leen lancé à partir d'aujourd'hui pour un mois la leen may ngeen liggéey si loolu jigéen ñi wane nañu seen bopp mais ñëpp xalaat nañ du sotti jigéen ñi xejutuñ place France wane nañu seen bopp estaat yéen seen bopp bu jox naa leen date boo xam ne un mois leen may ngeen président par et puis boo leen di dem. Hmm. amul toog amul kaar de. Hmm. ku si nekk da ngeen marché ngeen di def. marché ngeen di def comme sëriñ bi comme sëñ Modou Kara bu ñëwee bu ñëwee Thiès. Hmm. gars yi ni ñu koy teere si bunt bi. loolu laa bugg yooyu ñëpp